ponk bu euh, mujj donc rapidement rek ñu euh, daal day addu monsieur Nguer ci euh, pose première pierre mémorial de Gorée bi nga xamante ne ni njiitu réew mi mi ngi ko doon amal samedi ji foofee ca ca ca ca Gorée. waaw moom yàgg na ko def wax dëgg yàlla bi fi toogee ba léegi mm, yàgg na di pose première pierre eggale ko ak inauguré loolu moom yàgg na ko fi def. Nah, ah, ndax euh, ah <laughs> yàgg na ko fi def wax dëgg yàlla <laughs> depuis ñu ko fal ba léegi mhm. ah. gis nañ lim fiy defar tey bi bii moo mujj te yaakaar naa bu fi continuer woon nekk ba ci kanam tamit moo gën ci ñun fi mu demee mhm. fi mu matee ba ñor foofu lay demee mais yaakaar naa suñ ko amaatoon cinq ans wax dëgg yàlla Afrique moom fi mu ne nii ñun ñëpp ñu ñee ci ni mu développé réew mi ak ni mu mm-hmm. développé surtout <coughs> côté infrastructure yi ni moom wax dëgg yàlla da cee def liggéey bu rëy rëy rëy rëy liggéey boobu nag parce que Dakar Gorée day ñaari dëkk yoo xam ne su mënoon a nekk sax pont moo ci gën mm-hmm. pont boo xam ne day transversé Dakar Gorée su mënoon a nekk mm-hmm. da cee gën nga xam ne day nekk benn dëkk da ngay mën a jógee Dakar waaxul naa dem gore wala nga taal sa moto dem mais di xaar bato dëgg la sax bateau yi moom tubaarkaal la waaye pont da koo gën. di ñaan keneen kuy ñëw mu jéem a xool loolu ndax mun na nekk. ci ci ci euh, wàllu chaloupe yi nga wax léegi sax gis nañ ne am na chaloupe bu yees boo xamante ne nii euh, am nañ ko ba mu tuddee ko ki nga xamante ne nii. moo di euh, père Joseph Ndiaye. waaw loolu moom dëgg la. Mm-hmm. waaw waaye keneen kuy ñëw dañ koy ñaan. Mm-hmm. nañu jéem a def lu effort pour Dakar Gorée am pont. pont Dakar Gorée. nga xam ne boobaa. dina wàññi parce que boo xoolee bato bi li nga daj. Mhm. Mhm. dem beeg dikk bi pont bi da koo gën a sa oto ngay taal rek jéggi dem xale yi kuy ki jël sa oto kii mais yàlla tere bateau yi da daan paan. Mhm. waa am problème mu wa Dakar am problème mu récemment rek. mais pont nag moom li dina pan, pont mom du paan <laughs> day màgget nga defar beneen. suñu ko parce que loolu régime bi fi a ñëw ama ñun Sénégal li ñu tardel régime bi njëkk a ñëw. 40 ans yi mo ñu ray ba ñu dé 40 ans PS yi daf ñu ray ray ray ba ñu dé dañ ñu defalul dara dara dara dara c'est régime mu président Abdoulaye wat nak bimu ñëwé mom ak ay domam wax deug yalla ñoo défar réew <coughs> ku ko wax ak ku ko nangu mm-hmm. donte ñi ngi wax système système mais ñom mom système bu baax la ñor parce que biñu ñëwé wax deug yalla ñom ñoo défar réew mi li fi baax yépp ñom la mm, infrastructure yi nga gis mu baax fi yépp njabotam gi la mm-hmm. mais Abdou Diouf ak euh, Senghor suñu mam ñom wax dëgg yàlla ñoom ñoo tardel réew mi ñoo ñu tardel carrément parce que ñii dañoo waral mottali mais ñii dañoo commencé léegi nag

de feu Boubacar Joseph Ndiaye euh, ancien conservateur de maison donc des esclaves bu góor ñu koy ndokkeel bu baax ak famille ci euh, tour bi nga xamantene ne jël nañ ko ko. Mhm. duppee ko chaloup bi je pense que ne lolu waron nañ ko def bu yag mais heureusement le président Macky Sall a pensé à cela. Mhm. xalat nako ba def ko. ala ñu ngi koy waxaat hein, sur le plan euh, immatériel plan matériel. Macky Sall voilà a a beaucoup fait quand même mhm. nak voilà qu'on se le dise nak xam nga ku ku ku ku gis nen quand même di nga nan nen a sur le plan infrastructure waxuma

ñuy leen di xalaat euh, ci su nga xamante ne mooy suñu mémoire mm-hmm. en et pour dire rek qu'on qu'on pardonne ñun ñi ngi baale mais on n'oublie pas maanaam gis nga esclavage bi nekk na fii ay ati ati ati at ay siècle sax mën nañ ko wax des millions euh, euh, de d'esclaves ay suñu maam ñi nga xamante ne jógee nañ ci yenn euh, dëkk yi nga xamante ne ñu ngi wër yenn yi ci Afrique sow jant bi ñu ngi ci Afrique penku bi ñu doon leen jël di leen di dugal ci bato yi di leen di yóbbu di leen di jaay. ay aana te tois de fond loolu ñii dañ leen di baal mais fàttewuñu quand même loolu visionnaire yi nga xamante ne mooy Léopold Sédar Senghor ak ñii di Aimé eh, Césaire waxoon nañ ko fi ni que ne lii nga xamante ne moom la ñu tubaab yi def duñ ko fàtte mais jéggal nañ leen quand pour diir que ne rek on pardonne mais on n'oublie pas njiit réew mi Macky Sall am maturité ak euh, performance bu nga xamante jàddu na yell na ñu teg première pierre tabax li nga xamante moy mémoire mémoire euh, ci nga xamante mom moy mémoire bu gore ñu euh, commencé nak li di travaux yi pour dire rek ànd mhm. euh, que ne li di travaux yi dina am ben centre d'étude bu jëm ci walu traite mhm. donc des êtres humains day dellu si waat rek ci xel li nga xamante moy walu esclavage mhm. waaye itam dina am libraire ben librairie bi nga xamante ay ay ay ay téré ay ay ay jumtukaay manam ay livre yi nga xamante dafa jëm ci walu esclavage voilà, là ci lañ koy en sus donc de la maison euh, des esclaves muy mhm. euh, voilà maison de Gorée euh, ci rek dina am salle de réception ñu def ko ci parce que nous Macky Sall bi muy tek xeer bi rek mi koy wax mhm. donc en en en en acier lay donc ñu en mu lu nga itam ñi bitim dinañu esclavage et pour dire rek ana en corrélation est-ce que tam duñu dem sax ba loi bu nga afrodescendants yi ñi nga xamante ne esclaves lañu. parce que mm-hmm. booy dem Amérique noir africain yu noir pardon noir américain yu bëri voilà ay sont originaires wala seen ay maamaati maam seen ancêtre nekk ay esclaves mm-hmm. est-ce que ñoom du ñëwaat dellu si waat ci euh, donc euh, di jege ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen euh, la seen maam yi nekkoon ko fi maison donc maison voilà de la maison donc de Gorée maison des esclaves de mm-hmm. gore di fi di remémorer li nga xamante moy jaar-jaar yi fi sen maam yi nekkoon te mu nekkoon nag jaar-jaar yu metti à à ne pas oublier mais on pardonne quand même ah, je pense que buñu ñu lool rek dalal si ñi nga xamante ñoy afro descendants yi dina baax ñuy mën di ñëw di afrika di voilà di xalaataat bu baax li nga xamante moy sen seen fi jaar donc euh, madame euh, Coly Aïssatou mu nekk un projet bo xamante ni dinañ ko teug ci euh, durée wu 20 mois mm-hmm. donc 2025 en 2025 mille dinañu inaugurer pour euh, les euh, projet ñu tabax ko nak ci euh, distance bu tolok loc 3,5 hectares. alors et remercier monsieur le président Macky Sall parce que mu ngi def benn liggéey bu am solo ci mm. walu moowu mm. Gorée kuko xam xamné ne c'est une ville historique comme nek ci que ça soit sur le plan national ak plan international mm-hmm. donc monsieur le président demee ba tok l'année ni dafa Gorée dafa wara am mm. dafa am war dafa am war a am benn mémorial mhm. mhm. euh, duñ def rek loolu di ko remercier ci loolu parce que loolu dina tax histoire Gorée mhm. xale yi mujjee juddu dinañ dinañ ko gën a xam mu ngi noonu donc Daouda euh, rapidement rek euh, nga wax ci sa xalaat <laughs> nga wax sa xalaat parce que bul fàtte ni annoncé woon naa ko au début donc en fin mission moom dafa war a ñëw ak sa rubrique mu ngi noonu en tout cas euh, soxna Anna euh, Gorée dafa bokk ci ñeenti dëkk yi nga xamante ni mooy ville historique bu mhm. Sénégal mhm. mhm. da nga Saint-Louis wax Dakar wax Rufisque wax Gorée donc ci histoire du Sénégal Gorée dafa bokk ci li nga xamante ne bokk na ci histoire du réew mi mais bi dafa am solo man démb xamante ne ñu ngi doon tuub ci tuur ay xéewal toog ak ki nga xamante ne mooy son excellence président Macky Sall da ko wax di wax yi nga xamante ne maanaam euh, fekk de un mois que dafa dafa nar a dem il y avait beaucoup d'émotions. du bàyyi réew mi de. waaw waaw maa dafa nar a dem euh, jóge ci. <laughs> bopp réew mi bopp réew mi autant pour moi nga dégg ci kàddu yi am ñu ko nous avons choisi. ndeysaan mm-hmm. euh, vous aimer. vous garder dans dans nos cœurs. absolument loolu loo xamante ne yaakaar naa ay kàddu yu am am solo la. Mm-hmm. Euh, keneen ki ne ko il est plus bon et moins fatigant d'aimer que de haïr. donc kàddu yoo xamante ni kàddu yu mm-hmm. am am solo. su ma koy jeexalee mooy xanaa li wax rek Olof Ndiaye li muy faral di wax naan. ku def lu lu.